lula neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëggu ma man te loo bëgg bëgg naa ko. salaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax bienvenue dans Dakar Info point net yaay buzz yaay buzz tey am mbégte ndalal ndanaan moom Pendo Guissé di nag sër si ki xam moom mooy Demba Guissé. waaye tamit def li nga xam ni moo tax tey mu toog fii si yaay buzz namoon naa leen un single qui cartonne voilà vidéo bi génn macha allah également une très belle vidéo ñuy nuyu baax a baax Pape Président art bi management jaajëfal ñi si jàpp ñëpp également. Euh, Pendo dañu waxtaan si moom euh, si li nga xam ni moom mooy carrière am euh, si li fekk également ma dégg ko mu way du bi à la fin mu bett ma lool xëy na bare nañu mu bett parce que taasu la gën a xamee gis nañu vraiment publicité yu bare ak yeneen yu bare nga xam ne tey jii. jaar-jaaram dinañ si waxtaan fa mu dooree ak fu mu toll nii ndax dafay annoncé également album dinañ si waxtaan euh, fan la toll si promotion bi ndax am na animateurs yu ñu dégg ni également duñ ko teg ñii dinañ ko teg ñii nañ ko ñii ñu ngi si jàpp ñii jàppuñu si yëpp dinañ ko leeral tey incha allah et également Pendo est-ce que dina euh, pare na pour ñëw toog maanaam wala pare pour teg orchestre di jouer comme dina ñëpp ay soppeem du ko fa fekk parce que bare na ñu ko bëgg également gannaaw bi ñu ko euh, ziaree ziar internet yi di ko baalu ak si li nga xam moom mooy tabaski bi ñu génn maa ngi koy wax salaamaaleykum Pendo. waaw asalaamaaleykum Maxu maa ngi lay nuyu di la baalu àq ci tabaski bi di nuyu waa àdduna bi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi di nuyu képp koo xam ne rek soppee nga képp koo xam ne bëgg nga ma te mënuñ mënuñoo gisante hmm. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen baalu àq di leen baal yéen ñëpp di nuyu borom kër gi nag nga xam ne tubaarkàlla macha allah moom lu def am na rasul. sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom. Euh, noo dundee sa sa tabaski. waaw tabaski bi nag sant yàlla rek comme d'habitude comme man ñun souvent dañuy tabaskee suñu kër yaay la ñuy dem. ñëpp fay mhm. daje. Mhm. donc euh, Cambérène dañuy jullee. Mhm. ma nuyu waa Cambérène yëpp waa quartier Déggo yëpp ah di leen wax ne leen Cambérène daal bëggee naa leen bu baax a baax ndax foofu laa dëkk. tabaski bi daal neexoon na macha allah tabaski bi neexoon na macha allah. macha allah suñu kër kër. kër gën ñeeño la. dëgg la day day am ambiance dagan mm-hmm. voilà euh, Pendo euh, xam nañ la si taasu. Mm-hmm. Euh, xam nañu également sa famille presque art dafa nekk si ñoom. Mm-hmm. mën nga ñu wax lan moo lan lan moo la def artiste yow personnellement parce que tamit nit dina am ndey artiste bàyyi artiste te du nekk si moom. wala bokk du way wala du taasu wala du fecc wala du tëgg yow lan moo la def artiste. waaw man nag li ma def artiste man sax xam naa ni xawma ko. parce que nag sama yaay woyul sama papa woyul mhm. amuñu maam buy woy waaye am nañu ay frère yuy def aar mhm. sama mag sama taawu yaay mi ngi États-Unis Samba Guissé maa koy nuyu bu baax a baax mhm. kooku moo njëkk dugal suñu kër aar ndax kooku moo doon tëgg Samba mooy moom daal aar la daal moom Samba gisee aar la moom am personne donc moom moo fa njëkk dugal aar Aline Guissé nekk artiste sama cousin la Demba di artiste di sama rak donc ñun daal ak sama waa kër bàjjeni aussi Ibra Gise artiste la doomu Jibi Gise la Gise doomu Jibi Gise artiste la donc ñun suñu famille dafa am ay quelques personnes yoo xam ne ay artistes lañu te amuñu donnuñu ko daal mm-hmm. amul fenn fu ñu ne fii lañ ko donnee mais donnuñu ko peut-être don la bu am suñu famille bu am seen famille euh, gisoon nañ la euh, enfin ne mi ko nañu publicité yu bare mm-hmm. macha allah ah. surtout si côté taasu comme mooy wax si intro bi léegi euh, nit ñi moom xam nañu loolu xarañ nga si macha lan moo def loolu si yow. waaw loolu nag li ko def si man dama koy sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sangu sang yi ah, di ko gërëmee nag sama yaay seen seen mm-hmm. ndax nag nit mun ngaa am don mm-hmm. nit mun ngaa jàng dara waaye ki nga xam ne moo la ko tojal kooku mënuloo ko fay muy seen seen mm-hmm. parce que mënoon naa taasu mënoon naa woy mënoon naa def ambiance tout waaye moom bi ma nekkee ci moom laa xam taasu fii lay jugee fii lay wàccee ak créer parce Euh, na ma tudd produit yi su ma demee tey ba di toog sama kër. di décortiquer produit yu jàmbur. yoo xam ne moom woowuñu ma publicité ñu ma dara man maay gis affaire bi mu neex ma rek ma toog sama biir kër di ko toj noonu ba mu nekk taasu ma tegee ko nee. ah kon noonu ngay faral di def. noonu lay faral di def. da ngay gis benn produit rek. damay gis benn produit bu bees bu génn rek. Mhm. ma indi ko sama kër. ma di ko xool nii di ko xool di ko xool di si décortiquer yoo xam ne jànguma français waaye léeg-léeg ma décortiquer ci benn slogan bi. Mhm. loolu daf may neex ma ko taasu di ko denc sama kër. am na produit jàmbur yu bari yoo xam ne tey mun naa gëmm toog sama kër rek wax ci benn affaire loolu si sën laa ko jëlee. Ah, d'accord parce que sën bi may ànd ak moom boobu xale laa nag bu baax a baax. Mhm. xaw ma woon xaalis aussi. xaw ma woon xaalis dama doon wax ne ma def la boo ko joxoon léegi. yoo xam naa ku la ay millions boobu xaw ma ay millions ku la tegaloon ay da ngay def ma ne ko yii mais loolu kay doy na de damay may jaxase. xaw ma woon xaalis bi parce que mhm. moom c'était juste que jàng li nekk ci moom. parce que seen jël naa ci moom lu doomam jëlul. dëgg parce que ay doomam donnuñu ci moom dara nag wax dëgg yàlla. dëgg man mi xam ne man la yar. Mhm. man maa nangu ci moom. bëri problème gi maa ko nangu ci moom parce que bëri problème moom <laughs> maa nangu ci moom aal gi euh, euh, kon daal pank gi daal pank gi moom ci sën laa ko jëlee dama sama yaay dafa lewet waaw <laughs> sama papa dafa lewet mhm. sën laa jëlee ci moom yooyu noonu yëpp sën laa jëlee ci moom gaaw a aalu bi mhm. su waree defi dara sax di ko liggéey nii bu jubee sabar yi wala dara rek par force nga digg mu ne waa pend looy def nii il faut mu am kenn koo xam da koy day ibbi port bi mhm. donc loolu si moom laa ko jëlee ah léegi euh, bari bari caaj bi di waa di yëngal ay mbagg ay yooyu si moom laa ko jëlee mhm. donc nit loolu judduwaale naa ko mais si sën moo ko yee moo ko yee voilà euh, est-ce que kon euh, loolu moo la may facilité si publicité yi la yi la yi moom moo ma may facilité moom moo may yoon bi yoon bi parce que xaw ma woon mhm. mais jàng naa ci moom loo xam ne xam naa soo ma nee publicité laay dem naa la wax ne la nangam de jours yi nangam nga ma koy fay. ok parce que man tam am naa sama groupe buy publicité. buy publicité boo xam tey ba ma woon léegi jox ma benn podium mu un mois wala deux mois. Mhm. damay ànd ak sama ay groupe daal di dem dóor mu daal di dem dóor ko mu daal. Euh, Pendo est-ce que euh, da nga daan woy man dama doon woy parce que aw naa mhm. ñu baree bari pas mal parce que Moussa Diouf bi muy doog Moussa Traoré nag laa koy gërëmee moom ma njëkk a dugal studio pour ma aw ah d'accord Moussa Traoré Moussa Traoré voilà maa mhm. ngi koy a baax moom ma aw moom ma aw Moussa Diouf mhm. après ma ma awwaat Aline Guissé suma frère comprendre nga donc noonu noonu ak ay rappeur aw naa ñu bari ñoo xam ne sama baat mu ngi si ginnaaw te man bokkuma ci clip yi bokkoo si clip da doon lan la da nga doon da nga nëbbu da nga doon nëbb lan la lan non dama doon de xam nga kër rek xam nga boo nekkee xale nga bëgg dara mhm. ñu dugal ci studio da ngay tiit tiit bi ma tiit nag Ah, nu mu tudd Birima Sambay Saan ngañ waala bi ma koy aw tiitoon naa parce que ku musul dugg studio nga dem ñu takkal la mm. nga toll fa la gis ay Ouzin Ndoye ñëpp ne ci biti di la déglu yow kese nga ne ci studio loolu dafay metti nga am track nga am bi mm. ma ne waaye garaawul comme musuma koo def rek waaye comme damaa bëgg sëriñ Babacar ba lu ma wax dama naan sëñ ba yàlla na ma si sëñ Babacar dimbali rek bu ma bu ma am defet bi ma yuuxoo yàlla dogal loolu nag yuuxu boobu noonu Ouzin Ndoye dafa tàccu ñi nekkoon ci kii bi yëpp lii lañ soxla woon macha allah donc loolu fekk bokk nag nag si way itam yu ma gën a neex aussi. yu la gën a neex. Mhm. Euh, tey euh, nga nekkoon fii si télévision également ñu la doon gis benn instant gisuñu la nga mel da nga da sax tukki. Mhm. mën nga ñu wax lan moo la yóbbu. Mhm. ak euh, lan nga wuti woon. waaw télé boobu nag dama leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. ndax nag liggéey dina jeex mu jeexee histoire liggéey dina jeex mu jeexee ay liggéey dina jeex mu jeexee yu nekk mais yàlla dimbali na ma nag. ba bi may génn foofu noonu dara boolewu ma ak ñoom. jàmm rek jàmm kese kese kese moo boole ak ñoom. Mhm. parce que dama waroon a dem Europe faju ji. ok donc comme dama moon problème mu mhm. ndax yéeli cuun sax moom ma ko def nag dama koy wax tey laa koy doog a wax. ah bon yéeli cuun waaw. yéeli cuun hmm. bi fecc noonu. africain ndigal waaw non ñoom dañ dama doon seetaan seen kii bi rek li faatu war a di fecc noonu rek ma xataraay. ma ah? xataraayu nag ndekete sama zone bi loolu oh. nag ndekete xale yi fecc ma ak du fecc ah, waaw waaw waaw waaw <laughs> après nag sama tànk bi moo amoon problème donc ma demoon euh, Europe faji ji ko mhm. bi ma demee Europe nag bi ma ñibbisee mhm. laa laa bàyyi seen TV nga bàyyi seen TV voilà bi ma bàyyi seen nag après ma demal sama bopp dem jawbe dem di di liggéeyal sama bopp nag di jënd ay bagages yi ko jaay et tout Dóor waar waaw Dóor waar waaw bi ma mhm. demee ba toog nag maa wax ma waxtaan ak euh, sama benn xarit mu ne ma tey ngaa dugg studio ñu koy waxtaan di ko fowee ci kanamu Demba la woon nag. comme Demba dafa garaaw. ñu koy waxtaanee ci kanamam mu toog ak moom it beneen xattam bu tudd Mbay Ngom. di ko waxtaanee ak moom Mbay Ngom fekk ma sama biir kër si laa doo ko xam ni wërsëg biir këram. fu ne lay jógee. mu fekk ma sama biir kër mu fëgg Demba ne ma sama benn xarit dina la woo. mu woo ma ma ñëw mu jox ma xaalis na ma dégg naa da nga bëgg a dem defi demal studio lii moom ma dugal studio. ma dem ci laay jaañ rek. ñu ko laay demal studio comme laay moom du delloo loo wax mu ne la noomee ko rek laay ne ma nañ dem ñu woo Babacar Seck mu oyof lool nag te gaaw ci ñu woo Yatma Thiam mu gaaw ci ñu woo Ibou Mbaye mu gaaw ci ak Modou mi nga xam ne moom moo nekkoon ci studio Laye Diagne bi moo fa nekk mhm. donc ñu oyofal ko ba mu oyof affaire bi neex ñu ñëw dugal ko mun nga ni namoon naa leen c'est-à-dire eh, tukki bi moo la inspiré si namoon naa leen wala li nga gëj Euh, def produit lan la li ma gëj a def produit ak li ma gëj ci télé bi. Mhm. xam nga nga toog presque un an génnuloo télé. ñu naan la foo nekk foo nekk ñu naan foo nekk nit ñi di laajte kii fu mu nekk. et mhm. tout ñu lay gis des fois nga dem Europe ñëwaat du ñu xam looloo tax ma indi leen namoon naa leen. ok euh, naka nga dundee euh, namoon naa leen cest à bi nga ñëwee génn ko bala nga laata ngay def sax vidéo bi son bi macha allah yàlla yàlla def na si kii lool lool lool lu mu def si yow. loolu damay kontaan rek parce que nag nit mënul. Mm-hmm. donc yàlla bu na namee dara ci doomu aadama. Mm-hmm. nit da ko koy yéene bu bëggee yàlla si noo yàlla dina jël sa bopp sax jox ko. Mm-hmm. parce que man je si di ko defuma fi dara lu tax nit yi war koo bëggee noonu. te tamit kontaan rek nga ciy mun a am loolu. parce que nag ay nit génne nañ fi lu baree bari te kenn dégg ko. yàlla dimbali la mosoo génnee way nga ne xaaral ma génnee benn rek teg ko fi mu neexee àdduna bi nii. parce que yamatul Sénégal kese. yamatul fii rek. voilà yamatul Sénégal kese Sénégal gis naa leen ni ñu ni ñu dundee son bi noonu. Mhm. parce que ni ñu dañu ma ko doon dèjà damay jël cof tuuti rek si di koy estati nit ñi di ma la jox ma son bi may leen son bi génnagul. génnagul bi son bi génnee ma gis sénégalais yi ni ñu ko defee kenn ku nekk di ko sinap ñu nekk Europe di ko estati adduna bi surtout diaspora bi. damay mhm. damay sax des fois damay tiit ay xale yu ndaw di ko wayantu. donc loolu doo def parce que dogguma la euh, mm-hmm. waaye dafa yomb c'est-à-dire dafa yomb waaw parole yi parole yi moom dafa yomb yomb et puis si ni nga ko tegee gaam bi nga ko teg voilà parce que gaamu mbëggeel laa ko teg tam te mbëggeel ku mu gaañ mm-hmm. da ngay gaaw a jooy mm-hmm. da ngay xool ni boo fragile léeg-léeg nag mbëggeel peut-être ma sama abattre du dëgg donc loolu moo tax ma gën a sawar ci way wi parce que toogoon noboon naa nit nit ka def ma lu metti ba pare dem xam nga nit bàyyi la te doyaloo dafa dafa metti surtout ki la njëkk ni bàyyi naa la hmm. la njëkk ni bàyyi naa la te doyul mbëggeel ah, weñ guy tàweeku la boo yee rek boo bàyyee te kee bàyyiwul mbëggeel resool la resool la soo bàyyee te kii bàyyiwul day da koy gaañ léegi nag bu fekkee te mbëggeel mos ngaa gis ko ko teg ndànk yéen ñaa ñoom ngeen tegandoo amul amul voilà donc am kenn ku gaañ moromam le fait que man ma gaañu woon ci nag hmm. ma ximaliku ci gaañu gi moo tax ma wooy leen. moom anam moom waa jooju. non non dem na waaye amaan naa keneen ku ko gën. waa ji waaru quoi voilà mi ngi noonu <laughs> yàlla moom noonu la ay mbiram gi noonu. dëgg euh, euh, tey jii Pendo euh, li ñëw Sénégal. Mm. ba nga génne bi. Mm. maanaam son bi waxuma sa vidéo bi. Mm. ñii nee nañu am na animateur yu ko teg am na ñoo xam ne teguñu ko. lan la sa relation ak animateur lan la dafa am ñi nga xam ni danga nga demewul ak ñoom noonu. <laughs> wala pendoo lan lu xew loolu.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 parce que yow boo ma bañee teg sa morom may teg du dëgg donc am na loo xam ne je me suis dit buñ ma yëngal sax parce que man buñ ma yëngalee nag kaay mox la damay yëngu daal su ma la déggee eh, am euh, Sénégal wala ay animateur animateur animatrice am bu la gisee lay faf sax wann voilà wan na dañ bëgg di kaf ak yow di réew ak yow c'est si ñoom boo fi nekkee mhm. réew moo xam ne la réewum maslaa te maslaa tubaab lu mu koy woowee hypocrite maslaa mooy hypocrite mm-hmm. dañuy reetaan fekk du dëgg du dëgg donc nit ki soo leen àndee même bu dee benn fan la mës ngeen ko nekk ci jàmm ak salaam da nga koy rafetal mm-hmm. parce que man munoo maa teree dem dëgg yow mi ma tegul mm-hmm. munoo maa teree dem man munuma laa teree dem parce que nag sa yaay dafa liggéey dalaa liggéeyal ngay animé man sama yaay liggéeyal ma ma taxaw ci scène bi nit ñi di ma bëgg sa benn bañeel dong man référendum laa woote te sama yaay moo njëkk ni wii macha allah est que yaa ngi may dégg dégg naa la dama ciy yàlla bu baax baax <laughs> ba ma jooyloo wulee sama yaay xam nga léeg-léeg li may wax ne da ngaa sa yaay ma jooyloo sama yaay te rangooñ ñi duñu benn olof la lool la du nit ñi nañuy bàyyi des fois gis nit di dem te xamuloo lu koy yóbbu lu mu doon mën na nekk rangooñu màkk mën na nekk rangooñu kër boo ko dugal mën na nekk voilà donc mën na nekk it li ñu naan sama benn xarit daf ma ko doon mu sa wax mhm. ma ni ko da ngaa jooyloo sa yaay ma sama yaay te rangooñ ñi duñu benn mhm. kon yow mi nga xam ne da ngay animé mhm. forcé wu ma la pour nga teg ma forcé wu ma la pour nga invité ma soo ko defee loo war a def la boo ko deful waruloo koo def mais du ma la forcé mhm. du dëgg te man tamit nga invité ma taxul man ñëpp xam man nga ñàkk maa invité taxul kenn du ma xam parce que du yow rek yaa fi ne du dëgg parce que tam dañuy waxante dëgg tudduma turu kenn xulowuma ak kenn mais dama leen koy leeralal pour ñenn ñi nga xam ne peut-être ñi ngi koy def gis naa ko du ma tudd turu na ndax Sénégal la ñu nekk mhm. fi mu ne nii boo tuddoon léegi turu kenn léegi mu indi ay polémique ñi la ci bëggoon am lu ñu wàññi ñi la ci bañoon gën laa bañ waxuma ne kenn tegu ma waxuma ne kenn du ma teg mais damay wax ne. Hmm. li nga ma laaj question boobu laa posé. Hmm. dama ne man nga teg ma taxul nit xam ma. Hmm. nga ñàkk maa teg taxul nit xam ma damay sant yàlla ci ba ba ma kenn tegulee ma di ko dégg addina bi di nit ñi di ko synapté forcé wu ma leen. kon daal gars yi buñ la yëngal. buñ ma yëngal waa bëgguma yëngu xam nga lu tax. Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam ne nan ko oyofal nii rek na naa ko hypocrite comme ñoom. Mm-hmm. foofu lañ toll. foofu lañ toll. comme yenn animatrices yi wala yi nga xam dañoo hypocrite. Mm. nañ na hypocrite ak ñoom. Mm. parce que li ñuy wax showbiz hypocrisie la. Mm-hmm. da ngay hypocrite pour am li nga bëgg. non non non mais c'est vrai nañu waxante dëgg. Kumba Gawlo daf ma ko bëgg xam nga lu tax. lu tax ma bëgg Kumba Gawlo. Mm. Kumba Gawlo dafa direct ni la def. mooy bu bëggee wax lii da koy wax nii carrément. Mm-hmm. te Coumba Gawlo am nañu ko bëgg parce que personnalité ma tax du dëgg mais def si am yoo xam ne dañ ko war di ko wax Sénégal nañ ko rafetal gis nga rafetal boobu ñuy wax ay xol yi benn la benn bopp la nekkatul benn benn bopp animateur yi dañoo am seen ay xarit mhm. animateurs yi si am ay xarit ñenn ñi ci ñi ma ko war a wax mhm. je pèse bien mes mots ñenn ñi ma ko war a wax ñi koy def nañ ko arrêté parce que nit ñi xam nañ leen ñi ngi leen di démasqué clan yee bëri clan yi ñoo bëri mais man yàlla dimbali na ma ba awma ci kenn ak xaar ma yàlla clan mhm. du dëgg ñi may teg alhamdulilah. li muy bari bari bari teewul lii ñëpp bëgg ko nga génne ko clip bu bees namoon naa leen ñu seetaan ko dellu si waat sur le plateau. kontaan naa Twitter Facebook laa lay laaj ne ko bébé une très belle vidéo man si bi laay ñëw donc Papis liggéey na bon scénario bi macha allah gis nañu île de Gorée gis nañu ni mu mettre en bi nga xam ba mooy sunum réew waaye tamit euh, euh, gis nañu tamit sa xarit Leyti. waaw Leyti daal moom maa ngi koy gërëm bu baax a baax. ndax nag li ñu wax ne bu gërëmul nit doo gërëm yàlla nit léeg nga nga yar ko. Mhm. ba mu nekk xale. Mhm. nga am lu bari loo def ci moom. mu toog fenn di gërëm ñëpp te gërëmu la am na lu tax. am na lu tax. te nag man nit laa koo xam ni neexumaa jubóol parce que nag bu dee bu falsa amee du ma fals foo dëgg laay wax te yàlla mm. tax ndax nag sénégalais nañuy nangu di wax dëgg man dëgg mu dañuy wax ne dafa pànk pànku ma damaa bëggul ku ma yàpp ba pare duma ma hypocrite xam nga Sénégal dafa bëri ay hypocrite mm. surtout si suñu milieu bi est-ce que comprendre nga da ngay togg ak nit ngay wax ay wax gi nga mën a mënumaa reetaan fekk nekkul dëgg su ma jàkkaarloog maxu di ko ree rek li may ree dëgg lay doon ci man barke alaaji Malick ragaluma ku yàlla bind yàlla laa yaakaar ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, respecté sama ñaari waajur sama yaay ak sama papa mhm. ak sama ay mbokk ñu nekk sama ginnaaw dama doon wax ne toujours mbubbu aar bugguma koo sol mhm. parce que bu ma ko solee dëgg gi ci man su ma koy génnee toujours dina am ñu ma mere mais man damay bëgg ñuy waxtaan dëgg xam nga di ree naan rafet na te rafetul duma ko def du dëgg léegi mhm. dañ ko woo maa ngi ciy nuyu sax Saneex bu baax a baax mhm. ndax saa neex moo waroon def clip bi ok Cheikhou boobu ñu nekkoon ci seeni mbir wiiri wiiri toll na foo xam ne tubaarkàlla mhm. yaa ngi dégg dafay da ngay kenn ku danga koy comprendre mu mu wax ak man waxi nit njaay dëkk jamono ma ne ko yow sama xarit nga Saneex sama xarit la dama ko bëgg ndeysaan léegi ñu woo euh, nu mu tudd sax kii sama jëkkër ji soppe Ibrahima Mbaye soppe soppe soppe moom it mu tawat mu woo ma ne ma chéri ko ko waroon naa ñëw pour defal la clip bi parce que nag yow sama chéri nga ma ne ko loolu laa bëgg dafa feebar moo ma jox numéro Leyti ma jox ko Demba ni ko woowal Leyti Demba bi mu woowee Leyti dafa ni fan la ñu ne ko euh, Petit Mbaaw parce que clip bi ñu bëri comme rafet na ba mu ëpp dañ koy fu ne yóbbu nañ ko fa dañu foog ni almadi la wala feneen ak Petit Mbaaw lañ ko tourné si benn mm. xale bu jigéen bu baax boo xam ne rakki sama xarit bi moo moom mu luwe ma gi layti ñu woo ko layti ñaw def ko ci deux jours benn tey lañ ko woo suba layti ñaw def ko ma ko ciy nuyu bu baax a baax ndax yombul mhm. nga yëkkati nit mu ñëw te laaju la ne la fay ma xaalis bu bari mhm. donc loolu dama ko ciy gërëm bu baax a baax mu ñëw def ak yéene mu ñëw def ak yéene mhm. yéene mun ta li mu sol ma sol ko te yëgoowuñu yàlla ngoog layti mu def ci xol bu rafet boo xam ne maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal ci carrière am li mu ci bëgg yàlla na ko. amiin yaa euh, pour rejoindre li ngay wax également tamit si euh, euh, deuxième partie vidéo bi gis nañu nag nga valoriser la nga xam ni moom la sën def si yow. dëgg la surtout fecc boobu muy def noonu. waaw yaa may daaneel bi waaw yaa may daaneel bi. voilà pour wane ni tamit loolu ba tey day wane ni. bu bu mu hypocrisie solo si dara parce que mënoo loolu mënoon la a na ma ci bañ a fekk ndax sama yaay la nag. na créé leneen na def leneen sën sama mm-hmm. yaay la. Mm-hmm. sën sama yaay la loo xam sën laa gën a ragal ke sama yaay. yuuxu sën. mënu ma ko woon sama yaay du ma woon yuuxu sama yaay moom day ree rek moom moom. mais sën. Mm-hmm. dama ko ragaloon ba bu dara xewee damay bañ moom mu njëkk ko yëg dama ko koy wax. gaynde la sën xaarul yooyu. xanaa xamoon ni ma mel nii. yàlla xam na ne. si sën laa ko jëlee. moo ko def si yow dëggu gi ma dëggu nii ak. loo xam ne su ma koy wax da ngay foogoon damaa mer. Mhm. te meruma est-ce que comprendre nga sën la mel sën loo ko mën a fay ci àddina. Mhm. soo ko depp soo ko manqué de respect. loo ko mën a may boo ko mayoon léegi un million nga manqué ko de respect léegi day mel ne yow yaa ko mayoon un million. mun da jëlal dëgg. sën noonu la mel bu waree liggéey mu ñëw ba fi mu war a liggéeyee gis na micro bi dafa gàtt. caméra bi tàkkul musique bi dawul am na lu manqué li bruit bi muy dégg neex ko day bàyyi lépp dem toog da koy gedd professionnel noonu laa mel ci sën. dafa mu lu ma jël ci moom loo xam ne mënumaa reetaan koo xam ne bëgguma bëggu la voilà noonu laa mel moo tax ñuy wax dafa bëri histoire bëriwuma histoire mhm. ci sën mi ma jalis moo ma naqar yi parce que nag jalis bi ma jalis te réew mi fi mu toll réewum bësantel nit dalay def sax na ko naqar nga naan non aw ma benn xaar ma yàlla ak animateurs yi comme ni ko nit ñi di aw mhm. ma benn xaar ma yàlla ak ñoom mais nag li ciy dëgg nañ ko wax heureusement que mu am réseaux sociaux yi internet. Euh, moo tax kenn namatul dara na kaay. Eh, moom laa wax barke Alaaji Maane nombre de vues bi bi nga dara télé bu la tegul mbaa rajo bu la tegul kaay ma ko la dugg internet bi ñu faj sa soxla wax daa ngi xam nga sën dafa mos a wax ndeke médecine avancé na. mais ndeke technologie bi avancé na avancé na avancé na parce que nag nit ñi namatuñ dara léegi ñi lay liggéeyal foofu la ñu ne. Mhm. soo gisee li tax clip bu amagul weer. Mhm. amul weer parce que le 30 lañ ko dugaloon le 30. yegseegul ñu am un million et quelques de vues. de vues est-ce que comprendre nga sant yàlla la loolu. te bu fekkul woon nag euh, internet bi comme ni ñu ko waxee yàq na mais defar na. du dëgg parce que mi ngi defar nag nit ñi waa Europe diaspora bi diaspora bi ñoom fépp seen lépp ci internet bi la bu dara xewee sax bu ñu ko gisulee dinaan ko koji YouTube kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax kon animateurs yi moo tax ñu war koo wàccee nag nañu ràmbal te xam ni bu la kii tegu rek internet bi tegal du dëgg euh, te jii est-ce que pare nga également tamit lan maa ngi gis nga si biir si biir son bi ngay ngay lim mm, dëkk Europe yi waaw da ngay lan la da ngay préparer tournée wala lan la. Eh, xam nga fa demoon lan la. xam nga abaa xam nga abaa. maa yëpp abaa hmm. daf maa yëpp naa ma ndeysaan yaa préparé sa tournée noonu. noonu ah man ko la ma ne ko du préparation tournée yi xam nga boo baree ay xarit. bari ay nit yu la bëgg te yàlla tax te ñoom ñëpp ñu ngi Europe. dama dem Paris. waa Paris teral ma mënuma faa tudd ñun ñëpp. mel num biisu Saña laa ci mën a tudd. ñi si des ma ni waa ak Amina Ndiaye sama benn copine bu nekk Paris ma ne waa Paris mbaa pare ngeen. parce que bëgg naa ñu dund ko mënu leen a tudd ñi ma teral ñëpp ñi ma dimbali. dëgg la ak ñi ma seeti woon. Allemagne ma dem fa la même chose. ma dem euh, Belgique la même chose Belgique ma fekk fa ay nit yu baax. Rama Sow muy nekk nit ku baax ak jëkkëram. est-ce nga ñu tere xam nga ñun woykat yi li ñuy wax ne boo nekkee ne ku gën télé rek ñi lay dimbali du du du fa ngay liggéeyee parce que salaire u télé ak salaire u rajo mënu laa jëndal dara mhm. waaye dafam ñoo xam dañ lay gis sopp la te yàlla tax muy ay mag di ay xale muy ñoo tollool génération ba mhm. Amérique mhm. est-ce nga ñu di la dimbali da ngay toog rek gis benn colis bu ñëw sa kër ñu ne diw moo la ko may kooku boo ko lee woy rendre hommage waa Belgique mbaa pare ngeen Allemagne mbaa pare ngeen Luxembourg dama fa am xarit boo xam ne dama ko waroon a way te jotewul parce que way heure la ak ay minute muy awa borom Luxembourg waroon naa ko way te mënuma ko way du dëgg donc loolu moo tax rek ma lim quelques dëkk yooyu nga xam ne jot naa faa dem ay nit dimbali ma mm-hmm. teral ma te yàlla tax ma woy leen ci loolu. et waa incha allah bëgg naa ko bëgg nañ ko te loolu dina bu soobee yàlla. Eh, lan la fay annoncé eh, album wala. album bi nag mi ngi des si loxo Laay Jaañ ak Papis Niang ak Mbaye Ngom mi nga xam ne Touba Dia su sa sama benn copine bi nekk Amérique. Mhm. moom pare na parce nee na ma keroog. voilà décembre tey ngaa génne waat beneen man ko da ngaa yàkkamti da ngay xaar. ndeysaan ndeysaan donc kooku mu nekk nit ku ma jàppale ci lu baree bari. Mhm. mais album mi ngi des ci. Laye Diagne ak kii parce que man damay jouer ay soirées en dehors de woy bi. pare nga quand même am nga répertoire bu nga xam tey jii bu. ku la album du ñaata morceau la du 6. ay 6 rek moom. voilà bu dee 6 morceaux loo xam ne dañ ko war a génnee. Mhm. te am naa ay papa yoo xam ne ñi ngi Sénégal fii ñi ngi bind. Mhm. te xam naa ne ku dem ne ko bindal ma ñaar wala benn dinañ la ko bindal. ñaa leen xaar bu ma jëlee li ma yor. dem jox leen ñoom ak li ñu yor. Mhm. ñu bindal ma ko defe naa ne 12 man 12 morceaux mën naa ko am. parce que am na samay papa yoo xam ne bugguma lim seen tur ndax demaguma ci ñoom damay bañ waykat yi jiituma ci ñoom léegi dan may bàyyi rek instant am na ay papa yoo ne ñu ngi nii jàkkaarloo man damay bañ souterrain ba quoi ah, ah, ah. <laughs> ñu ñëw si li nga doon wax léegi moom mooy euh, xëy na foofu la ñuy jeexale euh, da ngay jouer live euh, tey est-ce que commencé nga pare nga pour loolu fan nga tollu si liggéey boobu parce que man dama doon jouer ay live balaa maa génnee man bi ma nekkee seen TV maa ngi doon joué ci boîte njëkk naa joué boîte bu ñu tuddee Cap Ouest. Mhm. joué naa fa ay yu baree bari. Mhm. ay nit di ma fa fekk muy fees la ñuy def gisee fermé. Mhm. maam di sàkk bi mu yoree moom tamit. au black au naa fa moom tamit joué naa fa ay at yu bari. joué naa fa bu génnee yëngu leen tamit joué naa fa te maa ngi koy commencé waat léegi nii rek incha allah peut-être ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp ñoo ngi koy lijjanti maa ngi koy wax ak léegi Demba. su sottee rek dinañ joxe annonce bi parce que si WhatsApp bi lañ koy dugal xale yëpp ñëw. ñu ngi koy waaj parce que commencé woon naa ko jouer bu yàgg. snap bi ñu ngi yegg si. snap bi ñu ngi si waaw ko dama ciy kontaan nag. Mm. est xam nga du man man daal maa ngi sant yàlla di sant yonent bi. sallallahu alayhi di julli ci yonent bu tedd bu baax a baax di sant sama ñaari jur muy sama mm-hmm. papa ak mm-hmm. sama yaay. Mm-hmm. ndax nag sama yaay nekk na koo xam ne dama koo bëgg sama yaay sama xarit la loolu ñëpp xam nañ ko. sama papa aussi sama xarit la mais ñoom ñaar dañuy dañuy xëccoo ku nekk di wax ni sama papa des fois dama koy wax ni ko baaba sama yaay moo gën nekk sama xarit de eh, eh. mais sama papa des fois mu yoot moom tamit ñoom ñu waxante ci pet jaxat jëwaale sama yaay xam ak sama tante aussi mhm. samay doomu baay sama ay mbokk mhm. sama ay xarit mënuma lim su ma limee damay juum mhm. mais ñépp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax nag c'est pas évident nit di way ñu jàppaleeku ko nii sénégalais yi diaspora bi youtube bi bu leen neexoon ma am benn vue du dëgg mais nag yàlla dogal na nii nag ma ànd seeg papis ñaa aar bi management laay jaañ dëgg neexul mbay ngom Adama saw Pape Samba est-ce que comprendre nga ay nit yu bare bari bari bari jee asu sare borom États-Unis kooku moom kenn du ma moom dama koy ba ñaanal rek yàlla may ko gudd fan ak sénégalais yi si whatsapp bi youtube bi instagram facebook ah, twitter snapchat ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant parce que nag ma amuma li Ouzin Keita di wax mën guma dara amaguma dara yéena ma def noonu Eh, jërëjëf eh, Pendo ñu koy jaajëfal di gërëm également dem ba gisee Guissé so si réalisation bi ñuy jaajëfal ñëpp ñi xam ñu ngi doon seetaan nag depuis le début eh, jaajëfal nag waa Europe États-Unis ñu ngi leen jaajëfal ñëpp ñi xam vraiment dañuy topp Pendo namoon naa leen donc muy rek un son un single qui fait le ñuy jaajëfal ñëpp di leen sant di leen gërëm beneen yoon si beneen numéro yaay buzz ak beneen daanaan incha allah